bi li ko waral mooy dañu woote ab séminaire donc ab lël lañu la ñu ubbi ngir waxtaane li nga xam ne moo jëm ci wàllum processus électoral ak wàllum taxawaayu ndaw ci wàllum élection ci biir Sénégal parce que li ñu gis mooy élection yi nga xam ne jàll na muy présidentielle 2024 yi am na ay rëkk-rëkk yu bëri yoo xam ne mën nañ ko ci gis te président Macky Sall moo ko ci dugaloon pour gàllankoor ay candidats pour truquer ay résultat ki nga xam moy mooy sunu candidat muy le président Idrissa Seck 900 900000 voix lu xawa a touti 1 million am 20 pour cent ñu ne nag bu taxawul saytu processus bi saytu fichier bi amana buñu dématé élection li amone rek moy amaat. lolo waral ndaw rewmi ak ndaw coalition Idy 2019 and def ben say pour ñew waxtaan ci bobu leul pour jëm ci indi ay safara bu lolu noppé tamit dañoo fasiyéné wacc ci biir Sénégal ci gox yi gëna sori ci biir rewmi pour yëngalaat suñuy jajj yëngalaat suñuy troupe pour taxaw élection locale yi di ñëw ak élection législative yi ak élection présidentielle bu 2024 ndawu réew mi jàpp ci loxo candidat Idrissa Seck dugal ko palais loolu li ko waral mooy taxaw seetlu bi dañoo gis ne ndaw bu parti politique amee dayo ci ndaw ñi lay jóge kon jot na tey ndawu réew mi jóg dëggal seen bopp